Conseil sénégalais des chargeurs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 jouer théâtre maanaam ngir siiwa ngir célèbre te nee na loolee maanaam taxu ko jokko wax na ci jëm ci am njàngam nee na alxuraan la jàng série bii di mbetteel ak succès bi nga xam ne am na ko moom Serigne Ngagne waxtaan ci ak waa Rewmi Quotidien wax na tamit idée bi fan la jugee Serigne Ngagne ak koor gi nga xamante ni ñëpp moom la ñuy seetaan Serigne Ngagne wax na ana nan la ñu koy tëraleek idée bi fan la jugee wax na diggante ma ak Pathé Sène mi nga xam ne am na ay jafe-jafe loo xam ne aju na si théâtre ak série yeek niñ koy doxalee Serigne Ngagne Macky Sall tey jii la tournée agricole bi nga xam ne fas na ko def ci diwaanu Kaolack Kaffrine ak Fatick yéen kaay gi di Sud Quotidien ñëw ci institut chef de l'opposition ak commission technique indépendante bi nga xam ne moom lañ ko dénk ngir mu saytu ko ak opposition bi nga xam ne moo ko boy boycotté journal bi nee na dina met ci majorité bi ak ñi nga xam ne ñooy non aligné yi ndax majorité bi ak non aligné yi ñooy fas yéene xol ana kan mooy nekk chef de l'opposition yéen kaay gi di Libération ak Source A mu xëy ci convocation bi nga xam ne convoqué woon nañ ko Souleymane Téliko Diouf mi i union des magistrats yu Sénégal inspection générale de l' administration de la justice maanaam moo ko convoqué woon ni ki démb te li tax mu convoqué ko mooy kàddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko ci projet Khalifa Sall wax ne am na ay ndëngte yoo xam ne am na sa moom Souleymane Teliko démb ba muy dem ñaari avocat am la yóbbu woon maanaam dañu ko ko lànkaloon waaye nag giita ngaas ga mbir ma tàngoon na jër mujj ñu bàyyi ko nag mu daal di ànd ak ñaari avocat am ñu daal di koy loo xamante ni waxoon na ko daf cee daal di ñëwaat ndax na li mu wax moom la tribunalum Dakaaru xamante ni bees na ci mbir mi ñi nga xamante ni nag maanaam ñooy magistrat yi ñoom nag dañoo jàpp ne lii ak xooqutal la Souleymane Teliko li ñu ko wax maanaam yow da ngaa am obligation de réserve ba pare da ngaa war a yi nga xam ne maanaam ñoo àttee la Sall plan Orsec Aly Ngouille Ndiaye nee na fukki milliards yi nga xam ne def nañ ko si danañu ko daal di yokk yéen kaay gi di 24 heures Moustapha Diakhaté dem gi nga xam ne dem na ko Kër Massar dafa lajj Moustapha Diakhaté nee nga xam ne askanu Sénégal ñoo ngi koy dund maanaam Macky Sall daf koo daal di umpale xam nga tëni nga xam ne moom la solo Macky Sall dem dugg ci ronu baas ba di làkk ay nasaraanam loolu nag mooy ñàkk respecté askan wi nga xam ne ñoo nekk si jafe-jafe yi yéen kaay gii di li quotidien mu xëy di bi nga xam ne dugal nañ ko ko daaw te bëri na ñoo xam ne ñoo ngi sàkku assemblée daal di ci yëy yàbbi maanaam dugal ci seen loxo ubbi caab enquête parlementaire yéen kaay gii di sud quotidien ñu xëy fekk fa Lansana Gagny Sakho moom jafe-jafe yi nga xam ne askanu Sénégal am na ko ci lu jëm ci wàllu mbënn mi dafa tuumal Léopold Sédar Wade ndax nee na li fi Macky Sall def ñi fi jaar kenn defu ko si moom Lansana Gagny Sakho ci libération gi nee na nag lu toll ci sept cent cinquante milliards ñu jox la ko nga wax ne moom ngay dugal ci mbënn mi loolee tekkiwul ne xaalis bi yëpp maanaam ma ngi sir place yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy na ci lu soxal wàllum corruption bi ak marché public yeeg yaa ma neex gi nga xam ne am na ci ak système judiciaire bi nga xam ne Sénégal yore na ko ak lu jëm ci wàllum économie que Sénégal ni ñuy toppee seeni opposant loole lépp rapport du département d'état américain daana si joxar bi baaraamu tuuma état bu Sénégal maître Abdoulaye Wade daat nay wax ñi nga xam ne ñooy waa PDS ñu daal di commencé waat seen i yëngu-yëngu ci lu jëm ci wàllum politique ndax PDS lépp loo xam ne yëngu-yëngu la woon dañ koo dakkaloon ngir coronavirus bi journal bi nee na Khalifa Sall moom tim ay activité ma daat na koy dooraat Amadou Ba mi ñu dénk mbirum affaires étrangères niki démb doon na janoo ak taskatu xabaar yi wax na ci passeport yu yees yi wax na ci onze milliards yi nga xamante ne état bu Sénégal na ko xam ne ñoo nekk bitim sénégalais yi nga xamante ni jàppale nañ leen si Amadou Ba na lancement moom la état bu Sénégal fas yéene ngir nag xayma mboolem sénégalais yi nga xam ne ñoo bitim réew Amadou Ba wax na ci Abdoulaye Baldé mi nga xam ne ab doomu réewum Sénégal la te ñu rey ko si Libye nee na bu ngeen gisee askanu Sénégal maanaam dooleem bëriwu si maanaam mooy ñàkk kaaraange gi nga xam ne moo am ci Libye yéen kaay gi réew mi quotidien dikk na ci accusation yu bees yoo xam ne jëm na ci mbirum